هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول الله يوم نزوله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 سيدنا محمد الأمين ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen baal te di leen ndokkeel ci guddi yu tedd yi ñu nekk muy guddi yoo xamante ni guddi sayiduna muhammad la sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ashraful xalq seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moom la yàlla tànnal boppam subhaanahu wa def ci moom melokaan yu màgg yi nga xam ni moom la ci def melokaan yooyu nga xam ne daje àndul daje ci kenn ku dul menn benn jëmm jooju te mooy jëmm saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu junj ko ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ni sama borom de moo ma doon yar te yar bi ma yar rafetal na ko te àdduna bépp seede ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën a rafet yar ci mbindeefi yàlla yëpp subhaanahu wa taala ba yàlla sax seedal ko ko ci alquraan ni ko wa innaka la ala xuluqin azim boroom guddi googu nag ñoo ngi leen ci ndokkeel e, di e, ñaan yàlla yàlla nañ ko fekke at yu bare bare mu mel ni dañu toll ci fan yi burdu bi burdu nag xasida bu siiw la boo xamante ni ñu bari xam nañ ko waaye am na ñoo xam ne sax xamuñu kan moo ko def kan mooy wala ñu ngay dégg Buusiri waaye xamuñu kan mooy Buusiri xamuñu ban jamono la doon dund xamuñu lan mooy relation bi nga xam ne moo indi Seydi Hadji Maalik radiyallaahu taala anhu jël buur burdatul madiex boole ko ci programme gàmm gi nga xam ni daanaka lu tolloog fukki fan bis bu nekk gàmm la parce que gamu diwah di wax ak di feñal melokanu sangu sangi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam diko di ko adamay ngir ñu mën ko manoroi mëna roy ngir ñu gëna mëna jubok borom subhanahu wa taala qasida bobu nak ñu min ko ci burdatul madih wala ci benen turbi bi alkawaakibu durriya fi madih khairil bariya wala al bura yooyu ay turam la te bu ci nek amna lu ko waral ndax borom moo ko tuddee alkawaakibu durriya waye manto biko sallallahu alaihi wasallam joxone lolou mo tax wax burda waye wer gim ci ginna ginnaw bu mu febaré lolou mo tax ñu wax bur'a euh, mu melni pour ñu wax rek ci Muhammad al Busiri mu ngi dund ci 7e siècle ci euh, euh, ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu tollook six cent huit hijriya mu tolloog euh, mille deux cent treize ci juddug Isa mooy kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi dund ci një kii Mouhamadou Bousiri mu ngi dund ci njëlbeenu septième siècle ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ku Amnasah la amna na sax parensaay ñu lay na ndax bu siri tidiane la man yaa loolu mooy ni Seydi Hadji ma radhiyallahu taala anhu amna bu mag ci alburda ganna ba nga xamne ay nitu yalla yu bari wo won nan ko waye yitte wo gim ko wo dem na ba nit ñi sax japp ni kon tariha. siri mak mom Hadji ma ñoo bok tariixa te fekk bu siri mom mo mak sax Cheikh Ahmad tidiane borom tariixa bi kon khasida bu yagga yàgg la mu melni ni xasida nak di taxone borom defar ko ci lañuy ñew pour ñu mëna xam nak lan moy solos ñun ñu di jang fi ba tay ni dafa febaron febar bo xamanteni wërna munuko fu nek pour am paj waye mënu ko am gannaaw bi xelam jox ko ni te nga dem ci sa soppe bi sayyiduna muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. comme que moom mooy buntu yàlla nga jaar ci moom ngir dagaan yàlla pour mu may la wér gannaaw bi nga xam ni moom def na ay xasaayit yu baree bari ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko tàgg ndax moom ku yàlla xiiroon la ci njëlbeenu mbiram ginnaaw bu mu teelee mokkal alquran to ba ba jàngal ay uh, uh, borom xam-xam yu bari ku yàlla xiiroon la muy jàng siira yonent bi alayhi salaatu di topp sew sewu siira boobu nag motax ku pegon sira yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou nak lim ko jural moy def ko jural mu def ay qasaid yu bari ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ala sabil misal amna ñetti baaye yo xam def nako ko benn bi rek lañuy tuddu ndax ta bi duko maye mu ngi ko commencé ni ko bi dambil azim mudnibu xajilan yu nafsahu wa yu'annibu fofu benn xasida la ci xasaay yi nga xam ni ci la tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yittewoo gi mu ko doon yittewoo loolu lay lay jur ndax nit ki bu nekkee ci benn mbir def ci ay at lu yàgg a yàgg bu yàggee loolu dafay mujj bokk ci moom moo ne foofu de def ciy niroo ak seyd xaaj Malick radiyallahu taala anhu Seydi xaaj Malick mi nga xam ni ba mu ràññee rek la dëgmal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax mu dafa jàng ci alxuraan yàlla ni walakum fi rasulillah uswatun xasana am ngeen royuwaay bu mat sëkk ci rasulillahi ku gën a niru rasulillahi yaa gën Seydi Hajji Maalik bëgg a gën bëgg ñi mu am gën te ñu raw mu jël euh, yonent bi teg ko ci kanamam fexe nag pour xam ko ngir sopp ko ngir mën koo roy ndax bu fekkee xam nga ko xam bu wér day tax nga sopp ko sopp gu wér te sopp gu wér gi su amee ci yonent bi day tax roy gi la yàlla def loo woon nga mën koo roy roy gu wér loolu moo tax Seydi Hadj Mal jeexal dundam gi yëpp ci jàng ak jàngale Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàng ak jàngale boobu Seydina Seydina Muhammad euh, moo jur xilaasu zahab moo jur nuuniya moo jur abada buruux moo jur lakad haaja moo jur taaiya basitiya bi nga xam ne def na ko ci yonent bi salaatu wasalaam ak yeneen xasaay yi nga xam ni dañ ko dégg ci mag ñi tey sunu bët tegeegu ci mu mel ni kon foofu sey Hadj Maay niroo na fi ak Busiri Busiri yittewoo bi mu doon yittewoo yenent bi moo tax mu amoon xasaayid yooyu nga xam ne jiitu na léegi nag bi ko feebar yu sonalee muy waaw man dem naa fu nekk aw mu wér te maa dem ci sama soppe bi nga xam ni moom la waxoon ni ko anta baabullaahi ayumdu hin at ayumdu in ataahu min xëydika laa yadxulu yow rek sallallahu yàlla bi nga xam ni képp ku bëgg a dem ci yàlla te jaarul ci yow du àgg Busiri daal dem ci bunt boobu daal di taggaat sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tagg ko tagg yoo xam ne yu yéeme la mooy xasidatul burda bii ñuy jàng mu séddale ko fukki bunt ak Euh, fukki buntu fukki buntu yooyu moom la ñuy jàng ci fukki fan yi bis bu nekk ñu jàng benn buntu suñu paree teg ci alqasidatul mudariya bi nga xam ni moom it moo ko defoon ci julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci euh, suñu maam Cheikh Ahmad Tidiane Chérif euh, Cheikh Ahmad Tidiane si al maktum wax na borom dégg gu màgg googu radiallahu anhu mu ni booba leeru salaatul fatiha mooy xeeñ Muhammadul Busiri waaye jotugu ko su ko defee moo tax julleem yu mag yooyu mu doon def ci qasidatul mudariya boobu bi mu ko defee def qasida bi daal di koy jàng def te wasul jottali ko ci boroomam pour yàlla may ko wér mu tëdd gént muy jàng qasida bi ci kanam sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy jàng ba agsi ci bayt ba fa mablagu ilmi fiihi annahu basharun wa annahu xayru xalqillaahi satr bu njëkk bi moo jàppandi te mooy fa mablagul ilmi fiihi annahu basharun mu ni dayo xam-xam li nit daal mën a xam ci yonent bi donte kenn kenn mënta xam yonent bi fi nit mën a yem ci xam yonent bi mooy nga xam ni mbindeef la ndax moo waxoon ni da ma daatu nasaara fi nabiyihimi wax kum bi ma chita madhan fiihi wax takki mi mu ni bul wax la nasaraan ya waxoon di yàllaal seen yonent ba bu yonent bu ko yàllaal waye luddul dul rek soko waxe waxee yonent bi yallo nako legi nak bu mu bu ci fa mabloxul ilmi annahu basharun melni dafa kale nee na yonent bi ali satt wa salam mu takrar ko ñetti yon munul dem yonent bi niko wa annahu xayru xalqillaahi kullihim ki ngay tag dal moy gën ji mbinde fi yàlla yeb bu siri bi muy pare mu jël bayt bobu satr bi yonent bi joxe satt wa salam dal di koy laltaayal dugal ko ci bir qasida bi beytam bu mu jàng mom jàng beyt bob nga xamni mom la ko yenenti bi alayhi salatu wassalam gagante won moy mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika xayril khalqi kullihimi ñu taxaw ci beyt bob melni bu siri dafa taxaw ni yàlla mawlaya yow mi nga xamanteni ya mengo sama mbir yeb ba yal ba yow dong ya yeyo sama jamu mangi temmo temmoo lenn ci sen digal yi nga xamni joxe won nga ci alquran moy bi ngay wax nan ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu te yëg naa ni lotuna ci def ko kon bok salli wa sallim yàlla wutuma nga julil ma wutuma nga salmal ma ala habibika ci soppe ci sa soppe bi mawlaaya salli wa sallim daa abadan daiman abadan daiman abadan daiman iman mooy mooy am rupture maanaam salatu bi chaque instant day continuer mais abadan ba faw parce que bu waxoon abadan rek bu fekkee tey yow yaa ngi julli tisbaar tey bu subaa nga julli tisbaar bu subaa nga julli dañuy wax ni yow yaa ngi koy julli abadan waaye waaye amul daa iman je maanaam dawaam bu boobu sax boobu nga xam ne amul arrêté loolu la bu dugal ba pare doog a dugal abadan ñun nit ci kan lay julli mu ne ala habibika ci sa soppe bi. bi nga xam ni gis nga Habib ku ne xam limi li muy li muy pesé ci wàllu way foofu ak bu mu ala rasulika a ngi fi ana leneen a fi waaye mu ne ala habibika ba pare laf ko ci boppam mooy yàlla moom yàlla muy idaafatu tashrif mu ni ko yàlla nga julli ci sa soppe bi daal indi nag satr ba yonent bi indi woon daal ne xayril xalqi kullihimi ki nga xam ni gën ci kon bayti boobu mën nañ wax ni bi am wax jo xamni ni dañuy wax ni yenen bi moko gaganti imam Busiri Busiri di def nak sa yu jangé ben beuyti ci li bind dal di jàng yenen yonent bi su jangé ben beuyti ci limu mu bind jàng baytu ti bi nonu lañ ko don konni di ko legi nak ma ngi won sank ci bi mu jàngee xasida bi ci genti ci kanam ti bi ti bi jël manto jox ko mu yewu cër bu mu tàllil mu tàlli mu yek ni kon am na mu daal di génn bi ba ci yor-yor bi amee euh, commencé di dox dajeeg beneen waay xam nga foo dem rek am nañu garaaw ndax Bou Siré garaaw na waaye am na ñeneen ñu garaaw mais ci Tiwaawan gi noonu la mel da nga gis koo xamante ni ay pantalon chemise lay sol te nitu yàlla la mu dajeeg benn waay waa ji ni ko dama bëgg nga jox ma xasida bi nga def ci yonent bi Bou Siré ni ko ban ci ndax maa def ay xasida yu bari ci yonent bi mu ni ko mooy bi nga xam ni moom nga jàng démb ci kanamam ba mu jël mantoom jox la bi nga xam ni moom laa gis ñu jàng ko ci kanamam ba mu jël manto jox ko ki ko jàng te mu commencé amin tadakkuri jiiraanin bi di ma salamin te dama an jara min muqlatin bi dami xasida boobu laay wax bu siiri amatul pexe mu daal di génne xasida bi jox ko waa commencé nag loolu daal di ñu nettali histoire boobu affaire bi commencé siiw bi mu siiwee ba mu àgg ci euh, euh, buur bi te mooy saaxibam boobu euh, bi mu àgsee ci moom buur bi nag daal di ni moom mu ni xasiida bi du ma ko dégg waxuma jàng ko de mais duma ko dégg fekk maa ngi sol mbaxana du ko dégg fekk maa ngi toog damay taxaw temm kon su duma ko dégg fekk maa ngi sol dàll kon bu mu bu mu koy dégg rek day fekk du ma sol mbaxana day fekk du ma sol daal damay taxaw temm ba xasida bi jeex mu di ci barkeelu moom buur ba waa këram yi di ci barkeelu ba ñu dem ba euh, benn instant ñu yëg ni am na barke bu leen dugg si ci seen diine waaye am na barke bu leen dugg si ci ci seen àdduna te mooy ci barke xasida boobu lañ ko lañu ko amee ñu ni loolu nag moo indi nag boroom xam-xam yi ne commencé nag di yittewoo du di ko yittewoo di ko yittewoo euh, yittewoo bu méttee métti ñoo xamante ni ñenn ñi dañ ko doon sharxa di ko leeral ñeneen ñi euh, di ko jàng di ko barkeelu am na ñoo xam chaque guddi àjjuma dañuy jàng xasida bi pour jottaliku seen borom pour mën a am lu ñu bëgg am na ku ko doon jàng tamit wala ñu bari sax dañ koy jàng pour gis bi te lu wér la loo xamante ni boo ko jàngee gëm ko di nga ko gis am na na ku ko doon jàng te toog benn temps gisul yonent bi mu laaj benn borom xam-xam mu ni ko da ngaa da nga koo jàngewul ni ko Busiri doon jàngee te mooy da ngay def bayti bu jàll rek nga jàng maw mawlaaya salli wa sallim daa iman abadan soo ko defee rek di nga gis yonent bi mu daal di koy def daal di gis yonent bi siiw yooyu yooyu nag kéemtaan yooyu xasida bi def moo tax ñëpp borom xam-xam yëpp yitte woo ko ñenn ñi sarxa ko moo tax sarxa yu baree baree bare baree bari la am yoo xamante ni temps bi mayewu ko ni kon ñu tudd ci yu baree bare léegi nag euh, burdu boobu. indi giñ ko indi ci gàmmu indi giñ ko indi ci gàmmu mu mel ni boo bi ma la nettalee xisa bi di nga xam ni kon xasida bu jërë yitte woo la waaye tamit am na beneen mbir bu ci nekk mooy à chaque fois ñoo ngi a jullee julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te julli ci yonent bi rek mooy jaamu yàlla bi nga xam ni jëkk nga koy def nangu nan ko ba pare yow yaa ci des defal rek. xam nga ku nekk par exemple nga dem ci benn biro ñëw ñu ni la ah patron bi kat nekk fi kayit gi ngay wut patron bi neew fi waaye de ci suuf tiroir tiroir dafa mel ni bàyyi woon na fi boo xam ne si na ko ba pare dañu jël sa kayit remplir sa tour remplir ci rek ci gi jox la nga dem kazalika tamit këyit yi nga xam ne moo yor jëf yi lu ci war a nekk julli ci yonent bi tamponné nan ko nangu nan ko ba pare yow yow mii aji julli ci yonent bi yaa ci des boo jullee rek ñu nangu ko Seydi Hadji Malick nag defal ñu nag benn mawsim boo xamante ni promotion la chaque jour ñun ñëpp ñu ngi julli ci yonent bi ay nangami nangami yoon te duñ ko xam ndax mbooloo mi lu mu gën a bari su ñu jullee ci yonent bi lu toll noonu ci mbooloo mi loolu la ñuy jël di ko fay kenn nit ku nekk kon loolu daal ci gàttal mën nañu wax ni mooy relation bi nga xam ni moo indi Euh, nit ñi borom xam-xam yi doon yittewoo burdu te Seydi Hadji Malick bokk ca ñenn ci borom xam-xam yooyu ndax bu dee baxru bi bu siri def Seydi Hadji Malick ci la tëggee xilaas kon mënoon naa jël xilaas ñu woy ko même ton bi ñuy woyee burdu te bu boobaa dina dem. am na nuunu yaam boo xamante ni mawlidu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko defee waaye mu bàyyi fi loolu yëpp nag pour wane ni ñoom ñëpp ñoo bokk kenn ki ñu sopp te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam am na lu leen takke te mooy ngëm gi ñu gëm yàlla bokk benn téere bi moo moo tax mu mu jël burdu dugal ko ci programme mu gàmmoom su ko defee ñoo ngi jégluwaat bu baax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu haza rasulullahi yawma nuzulihi mutaqallidan bil haqqi wal burhani هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان